that's fine. foofu léegi léegi woowu woowu mel ni mel ni mel xaj ne. Eh, eh, eh, kii du sa morom da ngaa xaj. da ngaa yéex ay woowu lu sa yoon bu amul droit woowu. léegi buñ buñ tiitee ñu daw nag. ah waaye yéen mer waaye yéen sama nelaw fekk moom may nelaw nga yàgg lii day méttee bopp mag ah nga may wax affaire affaire mu ngi bëgg a yéex. yan affaire. action yi. action yan. yow yow yaa yow yaa dof man dofuma de damaa bëgg nga wax ma action yan action ñoo yéex ci kër gi laa bëgg a xam. yi ñu waxoon Dakar bi ñuy jógee Dakar li ñu waxoon yi ana affaire yi. waaw man lan laa leen waxoon bi ñuy joge Dakar. Eh, ñooñu ñu ñëwuñ ci eh, ñu ñëwuñ ci neen de. Hmm. ñu ñëwuñ ci neen de foofu rek bàyyi leen foofu ñuy ñu fi ñuy ñëwoon dañoo wax lu leel. waaw lu ñu leen wax laa bëgg a xam li ñu si dara. dañuy wax dañuy ñëw Thiès fii. waaw fii mooy Thiès. waaw fii Thiès waaw. la nga waxoon soo ñëwee yow sa kër étage la. waaw ngan di étage. piscine am piscine am piscine loolu la ñu waxoon. Hmm. mu ne am na ñaata doom. am doom yu rafet ba pare nee dañu lekk yàpp chaque jour. chaque waaw. waaw hmm. boo fi ñëwee ba léegi. boo fi ñëwee ba léegi. gisuma bi sax jën bu mag. Hmm. ay yabay lekk la ñuy lekk fii. Hmm, waa léegi yéen. ko waxuñu woon loolu. léegi yéen bi ngeen di ñëw kan moo na leen kër gi am na piscine kan moo na leen kër gi am na ay xale yu jigéen loolu que laa bëgg xam ku leen ko wax man maa leen ko wax. moo ñu ko wax. sama papa moo yaa ko nee na yaa ko wax. day fen ah? day fen. nee yaa ko wax day fen waxuma ko de. eh eh naa ne loolu seen problème la man nekkul sama problème waaye fii benn jigéen moo fi nekk ardu sama jarbaat Hmm. bu fekkee keneen fii piscine amul fi ko perong woni doo may hmm. leen ma tëdd fii sa waay fii kenn du fi nelaw de nga ne fi kenn du fi nday nelaw fii nga ne kenn fi kenn du fi nelaw man sama yoon nekk tos nañ gën a piscine bi fii léegi léegi léegi léegi génne piscine fii nañ ko génne piscine bi ñu yi ñu waxoon waaw nañ ko génne dafa am piscine am ay xale yu jigéen waxal ak ñoom toog leen kër gi amul piscine ngeen ne piscine day génn ci kër gi. ba nga xamee ne kër gi am piscine lan ngeen di kër gi daa am piscine. ah ku ko wax ko wax wax ji. loolu lan la ñuy wax ba tax ñu ñëw fii. seen bàyyee leen fen man bu ma seen bàyyi dégguloon li am laay wax kër gi fii piscine amu fi ay xale yu jigéen amu fi li ngeen fi gis looloo fi am wasalaam. jeex tàkk sawaay sawaay booy bu leen ñu fontoo booy booy booy bu leen moom bu laa amee de. waaw léegi léegi defal naa defal naa defal naa léegi defal naa wuy ma fii fii te yàlla nga def ndànk dërëm bee ko bi dakkitiir c'est la nit de wax naa dakkitiir ma ni moom laay wax ma ni dërëm yow danga war a bàyyi wax lu amul nit du fen lan laa wax lu amul dërëm dama la seetlu fan yii yëpp sooy wax danga naan kër gi maa ko jënd kër gi sama waxoon ñaata defoo ci un franc defoo ko si kër bi waaw defal nanka rek

ñëw transféré ko moom it mu fenn léegi nag yéen da ngeen di bàyyi mu sedd. bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd léegi lan ngeen bëgg def bàyyi mu sedd. xaaral laaj boobu waxuñu woon lii bàyyi ñu sedd dara. yow yaa moom kër gi. ñun dañoo luwee ci kër gi. léegi na na na na na bàyyi kër gi. ñu dem sa kër yow fi nga waxoon dafa am piscine. nee na kër gi ñu waxoon sa kër gi. kër. fi ñu waxoon dañu bàyyi mun a bàyyi wax ay waxi piscine man fii laa dëkk fii laa fii laa dëkk aw ma beneen kër ku dul fii. waaye moom moom maa njëkk sangu. déedéet man maa njëkk sangu maa njëkk sangu. dama jël bagage ñu dem ñu bàyyi fol bi. yan bagage waaw bàyyi leen ma bàyyi la fay. bàyyi la yan yan yan bagage laay jël noo dem. seen bagage seen bagage yéen. waaye si yow sama asa jabar ñu dem sa kër gi. kër ban kër. mooy fi sa doom yi nekk yow may ma sama jàmm waay fii laa dëkk fu ma jëm. <laughs> waaw fooy kër gi ñu wax ko almo kër gaa ngi nii mu ne ma na ñibbi ñibbi da ngeen ñibbi waaw ah dem leen mu ne ma nañ dem dem leen bu leen dem bu leen toogalee noonu bal leen mu ne ma mu ne ma dew ma dew ma fii laay toog waxuma ñun dem man dumbe dem leen dew ñu yéen a ñu dem dew ma yow ñëw fii barki démb xëy tey bëgg ñu waat sama yoon newatu ci man man génn naa ci seen mbir génn naa ci seen mbir nekkul góor yàlla jigéen dem dem ma yow ma fenn fii laay toog ñun barki démb dañ fi ñëw ak ko xamagu ñu neexaayu Cees sax nga jóge ñu ñibbi fii neexul neexaanul fii fii ah, neexul neex fi am na piscine kay neex na fi ah, ah, arfisine xanaa foos mooy piscine bi ñi dañuy feleek eh. force boo fi duggee sax ay di sangu ay day ngay lekk fii. Eh, eh, eh, ñu li leen ñu waxoon. ana booy xoola xoola la sa langage na ko xoolaat ah. ah. yow amoon loo wax yow. na nga xoolaat sa langage yow ku réew nga. maa tay. yow ku nga. maa tay de soo moytu ci kër gi naa la wol ba nga mokk nag. maa ba jàmbur de. maa tay maa tay dem. dew ma. mu numee dem. dew ma. fas la ngay dem. dew ma fenn laa demul. ayo ba ci démb lañ fi ñëw demaguñ fenn nga naa dem. wala mais moo fàttali joo joo juguñ ji. dew ma fenn dew ma fenn fii laay toog. waaw pousse leen ne la kees gi laay toog. na de. voilà léegi taxaw léegi voilà voilà. ndumbe ndumbe gumba ray xoolal. daw daw daw daw ma daw ma daw ma xaaral ma neexal leen. xaaral ma neexal leen eh, eh, yamal yow ma neexal leen. yamal eh, mënoo teg ma mënoo teg ma mënoo ma teg ma teg ma teg ma teg ma. tegal tegal gone gi yow. bàyyi ma tegal gone gi. doole ji yow. yow wattul sa bopp. ndumbe wuy ma ñaaki toogal ma neexal toogal ma neexal la toogal problème bi fii la nekkul foofu dof bi ma ko def. yaa ko gën a dof léegi wuy ma voilà léegi nañu waxtaan man xam naa ne yow amuloo problème. bul bul def dara dégg nga léegi xaaral ma nekkal la jox la voilà yow eh jox bul bul mer bul mer rab yi ma ma jox la téeméer téeméer téeméer ay ca téeléew ah di ngay jox ndum bi voilà yéen ñaar ay xarit ngeen jóg leen ngeen dem jóg leen ngeen dem ay ca dem leen ngeen waxtaan jógal dem leen ngeen waxtaan ilaha illallah akbar jox ko saafara une saafara boobu bii juróomi saafaraan bii bii nekkul benn saafaraan bi ngay def benn saafara ñaari saafara ñeenti saafara juróomi saafara laal boole jox la ko mu nekk kayit bi ñuy wax téeméer. dem leen. kër gi da nga fi gis muy tàkk man na tey. bu fexeel ba bul taal fexeel ba bul taal kër ay malaaka nga indi si kër gi yow ay malaaka nga indi si kër gi ay malaaka la ilaha illa man maa ngi door a xam ñii li seen bàyyi daan daj waaye ñi nit lañ kër gi ah. ñanké sif eh bañ ama fi ñaareelu sif xam bàyyi lii bala ngaa dag liñ ma nekk ma fii di liggéey benn benn xale di yàq ya mu ma boole koor ak wax di bari ma ne eh, nga bàyyi lii laa wax bu keroog ba ma koy takk fee nga toog faale woo ma takk liñ bi bàyyi liñ bi Et, deux, trois, quatre, quatre,

yow ñaan ko ma maxime dama la koy jëndal pour nga may ko ndaaya. papaam nekk fi wala waaye ko mu may ko. ah yow ñaan ko man mën naa dégg sensibilisation ñu ne ma nag ku nekk na toog sa kër sàmm sama njaboot ma jënd sama bopp masque jëndal la masque nga jël bi di may nga teg ko fan. sama dama dama ñëw pour que yow dem jox ko ndaaya waaw ah, léegi nag ah kon léegi yow lu ma la jox rek yow sa seytaane mais ne la nga dem yëgul ko ndaaya. papaam nekk fi. wa ndaayaan bu papaam nekk moom moom loolu moom la concerné man lu ma concerné mooy mooy sa dund yow mooy sa wér gu yaram man yow lan ma wax ma sàmm la yow yaay sama njaboot la mooy sama yëngu si ndaayaan ndaayaan lu ko ñàkk tey moom moo ko xañ boppam ndax gees bi ah yaa ngi yaa ngi wax yaa ngi wax naa naa day wool ci kon. xol gi la day woor. Mm. ngay mu ngi woor. wax ju bari ji laatul man man dinaa xam nu may. ndaa mel damaa asma de. tagal tagal tagal. Hmm? tagal tagal tagal. am am jël bi après moom mooy benn. lan teel nga takk. lan man maa ngi takk. masque bi pour nga nga nga protéger sa bopp. Eh, li li gars yi waxuñu loolu de. keroog démb dégg naa Zina xam nga Zina. Hmm. Zina

ñun ñun ñun ñun ñun allié yi duñ feebal. asalaamaaleykum. waaleykum waalaikumsalam. ay bay di kam ñëw na. waaw. njàngoo ñëw. nama naa la. waay sa waay nama naa la. waay sa waay njàng ngi nii. waaw waaw bandi rek. waaw waa Gédé. ah Gédé. day bañ joxe loxo. ah waaw waaw waaw waaw jërëjëf ka mu si ay yango eh, nama la de. bi. ana ana sa xarit bi ndaya mu ni mu ni si jàmm. waaw. diko ko fii di ko foo jaar. ah tëjuñu dañ nañ frontière waye dama dox. way yow yoo yoo xam fii yoo xam te tefes la awé man da jël. mu ne mané ay Ah, déggoo ñu ne resté chez vous. waaw. Hmm. waaw wax nañ waaye tamit fii du ma fi gan nag de. fii fii foofu la de. yii. Eh, eh, eh, toogal di ko la di ko. Ah. chef de bi bii fii la jógee. ah waaw sama xar yee danoo corona moo tax ma mettre leen àtte quarantaine ah. moo tax ma jël rendil rendil rendi leen pour lan ah xar yu corona doo rendi ah di la man bul ma indi problème chef de quartier bi waaye bu leen seen jàkk yi fii nii kii mooy nodd benn chef policier bu nekk. ah, ah waaw waaw léegi xam nga lan la. chef de quartier bi ñëw na fi démb. Ah. sa njaboot ku nekk ma présenté la ko présenté naa ko ñaar kum yi. waaw naa ko sama jabar ju ndaw. Ah. présenté naa ko xar kon keneen amul droit doo lekk si. yee ah kañ. après dañuy ànd ba si moom. waaw nga présenté nga damaa di toog. waaw waaw waaw <laughs> yow eh, ma leex yaa nga ko doon ñaan. <laughs> sa baay daal moo ne ma ya appañe nga bëggoon. paa gënal ña kii ba may ànd moom xam naa ko dikkam la tudd dikkam dikkati na kër yëpp dañ koy mus ndax mën a lekkam musul suur. bu suur benn yoon laa mos a remarqué lekk na ba suur mu ay jàngeen organisé woon mujj taam lu lépp lu mu fa toggoon moo ko lekk te taxul mu suur mais ko nit xaw xaw ma la kii daa xam nga. jàngu. cey njàng ak a wayu man de sax ah, xam nga man moom am na yoo xam mënu ma ko ah. ma koy wax mun mun nga yaakaar dama laa bëggut daal la yi Malick Ndiaye teg ko si naaj bi ñaaw xamoo ku ko solo teg naaj bi raxas naa ko ah, teg naaj bi naa boo ko amee boo si géej gi muy jeex waaw loolu say <laughs> mm-hmm. wax waaw kii indi dama waxoon wax wax pour yow pour ma mën naa fexe yow pour yow nga dem ma loo waaw waaye xam naa ne comme ni ma yi gor gor la ma gor laa de léegi leseel leseel fii garaaw mën ngaa woole fii ba ba muy yow nga yow man doom ji yow fexe nga rek ba sa doom gën la jógal ànd xaar xaar bàyyi di léegi xam nga luy def waxal waxal waxal lan la ngay ngay ngay wa wax wax wax waxalaat la ngay doxoo. voilà yaa moom ginaar yi ne fi. ginaar yi yi nekk fi. eh ginaar gi sama voisine bi moo moom dafa koy. yaa ngi ko yow laa yokkal yaa moom ginaar. nga ñun ñoo ko. waaw waaw. Ah. waaw ginaar kese. waaw ah, ginaar. rek. waaw waaw ginaar kese. chaque jour chaque jour. waaw waaw moom rek. léegi yow lay naan. ah kafe meew. du dee daa ma may ñebe du dee rek am si xaw. Ah. am si xaw rek day taam fu ndoxam di daal. waaw waaw da nga naan ataaya. rarement dëkk. waaw su xëddee. bu fekkee ginaar gi mën naa kaa sax xëdd ah. ñuy def ñuy may defal ginaaru ndogu ak ginaar xëdd. loolu ah, na moom feex tuuti ay ñetti fan kii ñu rendi. Ah, waaw d'accord mën dafa daal yàpp xar day nooy. dama dalu foofu foofu dégg <laughs> fee. waaw. Dikkam eh, tegal xar mi daal. ah dafa <laughs> ah, ah, ah waaw waaw léegi. dañ ko dañ ko laalu ah waaw ah naaj wi sax baax na si. rek waaw. xar mi daal tooy moo tax ma ko laalu mbir noonu. Eh, Dikkam fexeel bul yëg si lal bi da nga tëdd si basan gi waay. man niróoru naa tuuti la si basan. ah. kii am na lu mbokk na yow nga gan nag de. Ah, am naa gan tey am naa gan waaye yow. yaay dund yow. li mu wax nii dina fi ne yow kuy sëfleel. yow te la may sëfleel. di nga xam. la may sëfleel déglu ma rek. comme seetaan na jàpp na ba nga ne looy na ko di mel ni kuy joxe dépense kër gi maa fi nekk ak yow ak sa tante waaye yow noppee ngaa ndog loo war a ndogoo dinaa ko ko jox loo war a xëddi dinaa ko ko jox comme yaay jaay seytaane naan ko toogal ak kër gi lépp am na. non yow li nga xamoo ci dara. Hmm. waaw kilifa du leen xam kilifa du doxee noonu. Ah. déedéet kon man du ma kilifa. déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi di daan jël ndoxam joxe ko toog xiif continuer koor gi. loolu la loolu la loolu la Oustaz Fafane wax. man nan laa tudd. ah man nan laa tudd. yéen sa Fafane de. waaw moom nga wala loy. Eh, gis nga xam ne sa seytaane bi na ko jëmale si nit ñi te ba ba yeneen ci bi di ma jaxasee ak moom ña nga jaxasee ak ñaamaat ñëpp léegi jaxasee yeneen ci bi moo des. kilifa fiil. Hmm. kilifa. Hmm. boo amee koo xam dafa ñëw fikkal da nga koy jël nga joxa nga def yàlla. ba ma des ak yàlla man. waaw yow la nga des ak yàlla. tey moom ah, yàlla. mu bàyyi xool mu bàyyi moom. jëloon yàlla koo xam naa ko. Hmm. bàyyi nga ma yàlla waaye koo mën a bàyyil daal soo laalee ci laay ndogu de. ba joxaleel mako fofu ben mbusu bisap way <laughs> way de man kero bugon na part wa imam yéen saa dugal yo xamane ay sangu set ni hmm. waral ko dugal ci di wax sangu set naka lay sangoo ci koor da nga wara a xam ni compréhension bu nga am ñepp tolloo nu même niveau ñanku dal ah ñanku ah wa wa ñanku ñànku sa war nga di eh, nuyu ma nànku ah. ah yow do wor ba nu bëgg a téel ci loxo jaam ba ngon jot waaye naka wal <laughs> fi mu dem fee ah. mami. suñu kii ba mu fee yow. imaam daal naan naa ne li ñu wax noonu ci groupe euh, WhatsApp bi. imaam loolu am na solo. surtout surtout loolu. di leen dugg di pass surtout loolu en ñaan. film fin. mooy sama jàmm waay lan mooy film nag fin dem fin fin fin rek. gërëm. Euh, fin nañu ko bindee Paa fin nañu ko bindee. ah fin nañu ko bindee. tu eh, ma soxla moom. fin yomb na. waaw da nga def F. F def I. def N. N F. fi I. fii. waaw n in. E. waaw muy fin. waaw fiw day fiw day am fin. fin boobu nag ñun dana woor dégg nga. seen film yooyu ngeen seetaan mu weeru koor jotee da ngeen dem ngeen ca xaj ngeen dem yeggal seen fay ngeen kii. Eh, eh, baal ñu ay xale la baal ñu lan nga may wax. ñett ñeent xaw waaye ñaar xam na ñett xaw ma ñett xam na. Hmm. ah hmm. yow siboo na xawaal. Hmm. waaye saa yi sib na sib nga sib naa. xam nañu def may leen ndox ngeen naan bu jekk rek ci waxtaane ko. loolu ngeen ñaan xaaral ma ñëw. eh eh eh, eh, eh, eh toogal. bul jaxase dafa la dafa la lan la. lu fi jar xaaral ma ndox ngeen naan lan lañuy doon ndox ma ngi jëm ñu toll noonu. yow mii sa bët yi ay bët fenn kan ah. yow laa jóg yow bul yow bul waxal. ah déedéet sa bët yi sa bët yi sa sa bët fu mu toll naturel la. foo foo moo yemul benn place xanaa xamoo enquête dëgg ba lay enquête da lay fixer yeux dans les yeux. léegi man nee naa la xujj. moo tax ngay fekk mu naturel xool bi moo naturel du ko lan la. du ko loo gis sama bët yi. nekku loolu. yow diine kay. waaw oh, yow indi na ku nga gisee. dëgg yow waroo waroo jël ñànku mi nga xam ne wirul. waaw mm. fekk ay magum jëm. Mm. wóor ba heure bi mm. muy may ndox. Euh, dëkku yow da ngaa naturel xam nga dafa naturel. waaw yenn saa ñànku day taxu fii wax. nga ne ma gërëm ma ne la ah. nga ma sa doom ji colli na moo wir waaye xel mi dara jot. maa ko wax maa ko wax maa ko wax lu ma ma def. alu fa dox foofu. eh bul ini ndox de. boo fi leen gis nga ñii dañuy naan lan xel gis nga ñii bu réer la hmm. mag dina ko for waaw gone dina ko for waaw man loolu jàpp ne du kuréel loolu lay wax dof du ko for kay dof muy jeex kii bu nekk dof bi jeex du for waaw xanaa waaw faay bi ngay tourné bopp kii bi ngay tourné bopp kii bi yaa ngay fàttaliku boobu bi boppam bi ngay tourné loolu ban at la woon sax at man la xam nga mooy bi ngay tourné bopp bi yaa fa boobu tourné ko kañ kañ man kañ laa tuna ak man kii ni ñu ni ñu moom pataas mbaay mi est-ce que mës naa gis sama loxo teg sa bopp. ah. kañ la kañ la benn yoon. kañ la am ku lomb nuyu leen. mu ne ko xool bu bëri di dugg ci biir ci biir lomb bi nga tourné bopp bi. yow daal. Euh, mi day ay waxam day déliré rek. ñaan ko daal da ngay déliré rek. da ngay déliré rek. papa xaar mu utal leen ndox mi. day xaar xaar xaar yaay mu utal leen ndox mi. ñaan ko mi déliré waaye. yow maa ngi lay doog a dégg. nga déliré rek bul dégg de. ah loolu moo tax xale bi jigéen bi ñoo ne salaamaaleykum. Ah. balaa ma kaax maaleykum salaam ñoom ñu ne ma salaamaaleykum. daanu nga daanu nga. ah kon yéen yéen. dara fekk kon yéen. xale yooyu fii laa gis mu dugg. Mhm. alors mu ngi ci kër eh, Eva lay seet. ah kon yéen lu ngeen ñëw fi naan ma gerte tey dañ laa defal surprise seet si la ay kàcc kese la gërëm. lan la seq nañ relation bu ne. Hmm. Ah. ñun su mbir. Hmm. du ñàkk moo koy i moom. en kay mais ñàkk bu président la seen mbir fekkee lépp sañ na taxaw ne ma fekkee naa nangam papa ah, Adama yow Fatassi Amadou Sula. nee nañ doom ja nday ja waaye doom ja baay ja dafa jekk fi mu ne nii. doom ja baay ja dafa jekk fi mu ne nii. man du ma naanu ma de. Fapal jàppal ni. teel teel ma la dinaa téye pot bi nag. teel ni téye naa pot bi. naam Fapal. lan moo tax may naan doom. Pamelaas naanal. guuxal ko jox la bu yàgg naanal. Eh, eh, bul ko jox ba stratégie yow naanal. waaw waaw. léegi lan moo tax may naan doom. naanal doom. Ah, wala déedéet jox ko ma dugg eh eh. yow laa waxoon eh sa xalit bi wax xamul delluwaat ci biir toog foofu ah. ba ndogu jot. lii loolu. bu mu génn kër day génn. waa eh kii di ñibbi nga naan na dem toog lu tax muy dem toog. xam nga la laa bëgg nga xam ko. booy bi day génn. Ah, xam nga la la. moom mii kii. laaw na demaat toog ci biir ba ndox jot mu door a génn. ñam xaaral ah. dafa lu tax loolu. xaaral rek ñam sa wax day fëkk ndax. Hmm. kii dëkku fi. tiens daa ñëw pour seet si copinam copinam mu ngi koy gunge ma ñibbi bàyyi ko mu ànd ak copinam génn. Eh, alors léegi yow. Hmm. lan moo tax ko ngeen jox mu ndox ma naan. ba pare ngeen ngeen bëgg kii too ci. da ngaa njaaloo moo tax njaaloo day dog ko. fan laa njaaloo da ngaa xool loo xamante ne daggaltu la. rawatina nga dugg si intérieur am. mën naa njaaloo ah. yow kii nii boo gën a porte eh. porte contraire bi. saa eh, yi eh, yow laay waxal. saa yi ah. yow laay waxal. Ah. kii bu mu fii na dugg ci biir. la ma dugg ci biir xam nga ma dama dugg ci biir. loolu ci biir ñi mu romb lépp xool nañ ko. waaw ah. Hmm. Hmm. suñ ko su leen lombaatee ñu xoolaat ko beneen xool. waaw seen xool day dox. waaw ci biir. léegi ba ah. mu teg yoon bi. sawaay yow ay eh, defal naa yow ba nga ñëw nga jaar. nii laa awoon bi may dugg. waaw nii laay defaat bi may ah, dugg eh, eh, man mu toog sama saata gar nit du ma ko gis. du ma ko xool ma kan ma dugg kër yow laay wax yow. waaw yow kii xam yow xam nga bu baax xam nga laa bëgg mooy na kii delluwaat ci biir ba ndog jot te aussi avant bu lii bu ko sorati di dox. ci li yii ana maanu. lii yii lii yëpp. Ah. lii lii rek boo ko ko. waaw yow eh nii nii yaa ngi tooñ. xam nga koñ bi ñu ñoo ko ñaay. Mm-hmm. te ñun xam nañ yoon yi. Mm-hmm. kaa ñu dem. Mm-hmm. ma awale la rukk ji ne nga. waaw ñànk sa loxo bi gaaw bi ko. da eh, yow kii eh, ah. mi nga bëgg eh. lépp leer na. sa waay bu ma bu ko tuddoon nag. naa laa lay wax léegi yow Baalu Seye xam naa ah booy booy booy yow laay waxoon bu ma fontoo xam nga yaa ngi yaa ngi sax sa tàngoor bi waxuma dara. Eh, may ma sama daan wóoru ma nit jigéen ma ko. nga waaw ku tuub ba mu sës. kii jigéen la. waaw waaw ah, nun noo koy sama bakkan bii. waaw jaay tey ndax ki jar na ma. waaye ñoom da omolo omolo. da ngay omolo omolo. omolo yor bakkan. da omolo omolo. yow ñëwoon eh, man eh, joxe naa sax. donc donc yooyu da ngaa war a rek da ngaa war a yem ci boppam. waaye joxe naa sama bakkan. day leew lekk. ñoo doon day jaay leew lekk. Eh, xam nga ni lii lii. sama yoon nga ko ci biir dóor. yow nga yaakaar ni dina la ji du la jig yow. jël sa xel bu saf gi topp bi nga doon. dugg dugg dugg maa ngi ñëw dugg nañ fi maa ngi ñëw. dama la ko wax sa bopp yaboo yi sama élève sama élève sama élève waxal iPhone ay tas la dafa tas la iPhone tas la iPhone laa wax ñaan ku ñuy moo xam na bàyyi leen ñaan eh bu leen daa gis sama buntu bi de ñaan ko ñaan ko bàyyi ñuy moo xam na sama élève parce que loolu la leen wax